ñoom élection yi mu ngi nekk le 8 septembre. Mhm. may la benn weer maanaam septembre de ngeen soog a yokk fekk ñu suñu élection yi wees na. wees na <laughs> ñu ne leen ñu may benn bés. le ñu ne par exemple euh, ki nga xam ne moom mooy Mohammed benn Salman dafay ànd ak pour xeex États-Unis est-ce demeewul noonu tamit. non ah, demeewul noonu parce que réew bu ne dafay xool intérêt. d'accord yow Sëñ Bamba. yow soo jaayee fukki nag maanaam nag yu tolloo képp mhm. boo jaayee fukki nag nga am 10 millions. nga jaayee 8 am 10 millions. lay jaay huit yi bàyyi fukk yi leen di abone ci suñu chaîne bi di Fafa TV ngir ngeen mën a jot suñuy vidéo yu bees yi suñu ñun suñu àdduna dañ ko terroriser yow ñu la jéem terroriser ñoom ñooy ay terroriste parce que ñun suñu àdduna yàq nañ dañoo yàq suñu àdduna carrément xale yi dund ko dund bu métti ndax seen morom yi dañ leen daan wax seen papa terroriste la bu ñu demee école lañ si dañuy dund dund bu métti léegi dañoo mujj seen da jàng xale yi seen jàng yàqu sama wujj bi mujj ñibbi moom waa Saint-Louis bi mu ñibbi Saint-Louis ak njabootam yàgg jàng doomam yi année boobu noonu dafa yàqu. ñëpp ñun xam nañ ne soxla ngeen ndimbal waaye suñ ko mënoon wax rek maanaam ndimbal bi ci lan exactement maanaam dëkkuwaay ndax wax dëgg yàlla fekk nañ la ci dëkkuwaay boo xam ne dëkkuwaay bu xaw a doy waar la tey lan ngeen bëggoon maanaam jaamu yàlla yi leen. ñun de lu ñu bëggoon mooy lu ñu njëkk a lu jiitu mooy it ma am ñu ku ñu ñu jàpp ñu mu wér faju mu faju dellu si ni mu meloon dellu si sagom dellu si njabootam ku ñu mën a jàppale tam te yàlla tax si njabootam bii nga xam te ne ay muumin kese la xale rek la ki si gën a ndaw deux ans et la am ki si mag yi quinze ans la am kon ay xale lañ mais ñi ko teg lii man ñoom laay gën a lancer appel nañu bàyyi xel ni nu ñu amee njaboot noonu Ibrahim am njaboot li njëkk comme ni mu ko waxee mooy ñu dimbali ki nga xam ne mooy suñu mbokk al imam Ibrahima Seye ñu dimbali ko ba mu faju ba wér delluwaat si njabootam loolu nekk na ndimbal boo xam ne bu urgent la waaye itam kii nga xam ne moom mooy njaboote al imam Ibrahima Seye soxla nañ tamit dëkkuwaay bu ñu mënee sax mën nañu wax kër soxla nañ ko lool ndax wax dëgg yàlla condition yi ñu leen fekkee wax dëgg yàlla metti na torop torop torop mbokku jullit yi njaboote imam Ibrahima Seye soxla nañ ndimbal na si ñëpp def te yàlla tax te képp ku si def incha allah suñu borom dina la fay dinañ leen jox benn numéro boo xam ne am na Wave am na Orange Money am na lépp li nga xam ne mooy transfert moyen de transfert d'argent yi mbokk jullit yi ñu ngi leen di lancé waat appel une encore une fois de plus ñu dimbali kii nga xam ni moom mooy al imam Ibrahima Seye njabootam soxla na ko moom ci boppam soxla na ko ci dëkkuwaay ba ci sax dund comme niñ koy waxee mbokk jullit képp ki nga xam ne ni def na ci lii nga xam ne moom mooy njabootu Ibra imam Ibrahima Seye yàlla na suñu borom defar say mbir numéro bi nag mooy 77 544 38 80 77 544 38 80. Fafa TV TV. alhamdulilah rabil aalamiin wasalaatu wa salaam ala rasuli rabil aalamiin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain très chers amis téléspectateurs yi nga xam ne yéen ñuy topp ci biir Fafa TV ginnaaw bi ñu sante suñu borom si ay xéewalam di ko ñaan mu jullu si yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni saa su nekk dañuy am mbégte jàkkaarloo ak yéen war leen présenter suñuy émission waaye rawatina émission bi nga xam ne moom la ñuy wax question d'actualité comme ni ngeen ko xamee question d'actualité moom toujours dafay dalal ay gan yoo xam ni dañuy ñëw di ñu defal jàngat ci li nga xam ni moom mooy actualité bi nga xam ni dañ koy soxla ci suñu dund ci loolu tey ñu dalal si koo xam ni dootul gan ci biir Fafa TV doyoon na rek ñu ni imaam la waaye tamit gëstukat la jàngalekat la muy gëstu vraiment ci ay question yoo xam ni dafay soxal dundinu doomu aadama au jullit bi waaye doomu aadama ci kaw suuf nga xam ni dina ko jëriñ fii ci àdduna ak ci àllaaxira kooku mooy al oustaz Mouhammad Sow te ñu ñëwoon seet si ko ñu war a def moom jàngat ci actualité bi nga xam ni xew na ci àdduna ci fii ci Afrique ak ci Sénégal mën nañ wax kon xam naa balaa ñuy dugg suñu waxtaan dañ koy dalal ci biir Fafa TV jox ko mu nuyoo ñu soog dugg al oustaz ñu ngi lay jox kàddu nga nuyoo ñu soog a dugg suñu waxtaan bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulihi al amin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain ñu ngi sant borom bi subhaanahu wa taala di julli di selmal ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam di am mbégte itam dajewaat ak mbokk yi ci seen bi di Fafa TV di nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di la wax ne waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. jazakumullahu xayran al ustaz ci dalal bi. oustaz comme niñ ko waxee léegi euh, ñëwoon nañ tey ak suñu beneen émi beneen numéro ci question d'actualité hmm. tey nag ñu war a waxtaanee actualité yu bari yoo xam ne nii du ñàkk xëy na dina laal euh, la fële nga xam ni moom mooy peut-être xëy na conséquence yi nga xam ni moom moo xew ci guerru Ukraine Russie bi ci loolu oustaz sax seetlu nañ ni wax dëgg yàlla jamono yi nga xam ne moom la ñuy dund suñu réew mii di Sénégal maanaam per de famille maanaam ci gàttal daal képp koo gis benn jàmbat la lay wax muy maanaam dund gi metti na dund gi jafe na hmm. oustaz ndax loolu dafa am rapport ak guerru Russie bi wala ndax boog xëy na Sénégal ñàkkul li nga xam ne nii moom mooy am-am ba tax na xëy na ñi nga xam ne peut-être xëy na ñoom ñoo jiite réew mi alal bi kat xëy na peut-être séddale wuñ ko xëy na euh, si nu mu gën a jaare yoon lan mooy sababu loolu nga xam ne mooy dund bu métti bi alhamdulilah euh, suñ Bàmba boo xoolee dund bi nga xam ne ñu ngi koy dund ci réew mi ci coono ci dund gu seer gu jafe lool yokkute jég yoo xam ne jéggi na dayo mbay moo xam ne toppatoo wuñ ko danga gis ne li ko waral lu bari lool la donte nag guerru Ukraine bi moom par la ci ak Covid bi ku waxal dëgg moom nga xam ne loolu par la ci waaye aussi daa fekk pare wuñu daa fekk li ñu waroon a liggéeyal réew mi waroon ko faa teg ba mu tegu fa ci wàllu doylu ci wàllu lekk di bay looy dundee xam ne du aajowoo kenn boobu ñu assuñ foofu ndax réew li koy gën a sox sonal ci àdduna mooy bu crise amee ndax réew boobu am na lu mu dundee ba dundam yomb d'abord mën a faju mën a jàng mën a dund waaye ñun bi bu muy ñëw daa fekk ñun pare wuñu njiit yi nga xam ne ñoo fi nekk waroon liggéeyal réew mi ba mu war a am euh, li ñuy waaye doylu ci wàllu aliment alimentation alimentaire doylu ci nga xam ne duñ ci aajol kenn boobu ñun xaajuñ bi pare loolu nag nga xam ne daa fekkee parewuñu daa fekk réew mi tegawul ci raay covid bi ñëw jaar fi jàll guerre bi ñëw jaar fi jàll kon laa chaque ne guerre bi maanaam moom it impact am da ci feeñ lool waaye aussi ñàkk njiit yoo xam ne am nañ vision ci liggéey suuf si liggéey boo xam ne danañ tax seeni askan même bu amoon beneen réew balaa ñu ko yëg dana yàgg lool parce que boo seetloo bu guerre bi amee tubaab bi ñoom lu ñu daan waxtaanee ak africains yi dafa wuute africains yi ñoom bu ñu ñëmee Russie liñ ñu wax mbirum bele maanaam mbirum lekk maanaam négocier nu bele bi ñu bàyyeekoo Ukraine di continuer dem ci Afrique mais ñi nga xam ne avancé nañ ñoom ba liggéey seeni réew bi mën a am lu ñu dundee d'abord lu ñu soxlaal kenn ñoom waxuñu waxu lekk kon mooy wane ne ñun départ wuñ donc nag guerre Ukraine bi moom def nañ ci impact boo xam ne ku waxal dëgg wax xam ko ndaxte lekk yi ñuy importe di ko ba mu bàyyi ko bitim réew lekk yooyu yëpp dafay jaar ci ay avion ak ay bateau jaar ci ay taxes yoo xam ne moo ci tege avion yooyu ak bateau yooyu daa am lu muy lakk loolu muy lakk nag su yokkoo lekk bu fay jaar pour ñëw fa mu yokk nga xam ne petrole bi ak gaz bi yokk na ku wax pétrole wax gaz nag wax transport loolu bu xasee bi yokk na lépp loo jënd bitim réew di ko indi frais day daal di yokk ci yoon bi yokkute boobu nag foo mu feeñ ci pétrole bi ak gaz bi feeñ transport bi waaye feeñ ci lekk bi nga xam ne yaa ngi koy indi mu bàyyi ko bitim réew tontu nag état waroon na am effort yoo xam ne dina ko ci def ba du fe ba du metti comme nu mettee niñ ci réew mi loolu benn la mhm. ñaareel ba mooy impact bi nga xam ne moo ci ëpp solo mooy guerru Ukraine bi ak Russie mhm. waaw parce que euh, Ukraine ak Russie ñaar pays yooyu ñooy pays yu ëpp doole ci li wala di produit wal bele bi nga xam ne mooy defar farine guerre bi nag su amee Ukraine nga xam ne ñoom talatuñ tool yi taluñ liggéey bi taluñ dara loolu dafay def effet fu mu waroon a jëm bi si fa dafay manqué da indi farine ba seer foofu indi mburu ba jafe boo seetloo weeri weeri ci gannaaw xawoon naa métti lool donc mu ngi mu ngi wàññeeku léegi même aliment yi nga xam ne jur yaa ngi koy lekk dañ ci amoon problème aliments yi yokk seer lool métti lool mais mm-hmm. ñu bëri seen poulailler daa tëj mm-hmm. loolu mooy wone ne ñàkk defaru intérieurement réew yi nga doon defaru intérieurement bi ñu ajoo kenn même bu ñu ajoo kenn sax balaa ñu ko ajoo dañuy dañuy day yàgg lool mm-hmm. guerre bi nag naa ci ñëw ci gàttal euh, Russie mooy ki nga xam ne moo attaqué Ukraine waaye nag jur na coow ci yeneen réew yàq na aussi yeneen relation ci réew yoo xam ne yàgg nañu ànd lool te guerre bi dina jafe lool nga àtte kan moo tooñ parce que mm-hmm. Ukraine réew la boo xam ne boo amee indépendance am mm-hmm. nekk réew boppam Russie aussi noonu waaye Ukraine wala réew yu mag yi nga xam ne ñoo ŋànk àdduna bi moom Russie ak États-Unis ak Chine yooyu France mm-hmm. Angleterre dañoo dëppoo ne itam amul kenn kuy nangu sa frontière moroom ma samp fa loo xam ne dafa lay menacer sa wàllu sécurité bi tam boo fàttalee ko at yee weesi woon jamonooy problème yi nga xam ne mu amoon diggante euh, Cuba ak États-Unis loolu moo ko waraloon parce que russiens yi ñoo amoon seeni ay bombe nucléaire di ko installé foofu ci Cuba états bañ ko te babu aussi moom mi ngi amoon ay armes yu mu defoon fële ci Turquie ak yeneen réew yoo xam ne sori Russie mu jur coow bu metti seen diggante bi mu ju ñu juboo ne euh, Russie dina jël arme bi foofu delloo si ko parce que du tiim États-Unis dañoo ñëw frontière ci arme yooyu waaye États-Unis aussi jëlee arme bi nekk Turquie delloo si ko waaye aussi embargo bi nga xam ne moom la américain yi defoon euh, cubains yi ñu dindi ko am déggoo yuñ déggoon xam nga euh, ñun africain ñoo tardé ñoo bëgg suñu bopp mhm. gis nga ki nga xam ne mooy Cuba mhm. bu Fidel Castro ñëwee foofu be nangu réew mi dafa fexe tool yi nekkoon ci à suuf suufu Cuba américain yi yoroon ko yëpp daf koo nanguwaat ah, comme ko nangoon na américain yi dañoo mer mhm. embargo cubain yi mooy waa Cuba embargo leen ñoom ñu oññee quoi dem ci Union soviétique ci ci Russie allié wu ak moom allié yooyu nag moo jur Russie indi fa ay ay armoom team États-Unis ñu coowaloo loolu ba mujj dépôt ci négociation mhm. ku ne sa arme na ko delloo si waaye kenn du tiimal keneen armom loolu ma nekkoon départ dem ba ci biir nag Ukraine moom mhm. di dox jéego yoo xam ne pour war a dugg ci OTAN bokk ci union européenne. union européenne effectivement. fa duggee <coughs> union européenne nga xam ne OTAN bi nga xam ne États-Unis fa la bokk dañuy am droit indi arme seen i arme seen i base ci biir Ukraine te Ukraine ak Russie ñoo frontière loolu menace la pour Russie. Russie ne loolu du ko nangu. maanaam pour gàllankoor Ukraine dugg ci biir OTAN mhm. waaye ñaari bi aussi ak kuréel goo xam ne mu ngi ci biir Ukraine mooy nazi yoon yi mhm. moom ak ñoom mënuñ bokkuñ idée te ñoom ñu nekk nit ñoo xam ne ñoo fanatique fanatique lool mu bañ ñooñu dem ba ngànk réew mi mu ne ñaar lay xeex benn bi mooy Ukraine du bokk OTAN mm-hmm. ñaar bi aussi nazi yu ni mu jël leen biir Ukraine mm-hmm. nga xam ne seen cosaan mu ngi bàyyi ko ci idée Hitler bi nga xam ne mooy moo jiitoon Allemagne loolu guerre boobu nag loolu moo ko waral buñ tàmbalee ba ci biir euh, pays européens yëpp ak États-Unis dañuy xeex ak Russie ci wàllu économiquement pour loofal ko mu dem ba am ci jafe-jafe am na jafe-jafe parce que guerre dafa metti mais suñ borom fu ñu lay ubbee bunt dafa am pays yi nga xam ne ñooy ñooy ñooy produire pétrole dee ko ak mu musaddira li naft maanaam mooy pays yoo mooy OPEC pays yi nga xam ne ñoom ñooy produire pétrole di ko jaay nga xam ne ñooñu ñu ngi OPEC mu ngi créé wu depuis 14 septembre 1960 treize pays la seet yi maanaam jamono ji treize pays yi moo ci bokk seet yi africain lañ kongo ah, ma nga ca Euh, Angola mu nga ca Gabon mu nga ca Algérie mu nga ca mhm. Libye mu ngi Libye mu ngi ci Arabie Saoudite mu ngi ci Venezuela mu ngi ci Koweït mu ngi ci ba muy treize pays ñoo ñoo ŋànk OPEC muy pays yu am doole ci génne pétrole depuis 14 septembre 1960 ko créé dem ba 2016 mhm. yeneen pays yoo xam ne dañuy génne pétrole comme Russie 11 pays Russie ak Bahreïn ak ba muy 11 pays mhm. ñoom it ñu waxtaan ak pays yële pour ñu lëkkaloo xool nu ñuy aaree pétrole bi nu ñuy aaree aussi seeni i prix xam ne États-Unis bu la neexee ñu kase prix sall leen neexee bu leen neexee ñuy yégal baril bi bu neexee ñu wàccee ko ñu déggoo nag 2016 ne ñoom pays yi nga xam ne mooy 11 yi ak 13 yi nañ def benn mbootaay tuddee ko OPEC plus 2016 la woon mhm. buñ ci déployé pare pour aar prix baril bi ba du wàcc yenn wàcc yi war aar aussi lu ñu war a mën a génnee ci pétrole ñu dëppoo ci réew sangam mooy génnee nangam ku ne am looy génnee ci biir pour pourcentage bi maanaam ki am nangam pour cent mais ku ci ëppale woon nag mu Arabie Saoudite après Russie topp ci 2016 bu ñu demee ba guerre bi commencé yàggul dara février 2022 bii nii mhm. ñu amoon nguur si ci wàllu économie mu am jafe-jafe mais yàlla may ko bund ci pétrole bi mooy mu ngi lëkkaloo ak pays yu ëpp doole ci àdduna ci wàllu pétrole ci octobre bi weesu Euh, le 5 octobre avant octobre sax juillet bi passé Biden Joe Biden dem na dem na Arabie Saoudite mhm. pour waxtaan ak ñoom ci wàllu pétrole bi ndax ndax guerre bi dafa jur crise ci pétrole ak gaz ne bul fàtte ne Russie mooy jox Europe Allemagne yëpp mu leen jox gaz. ba tax bi bu gars yi ne nañ embargo ci wàllu économiquement Allemagne ne man mënuma ko mënaguma doylu ci gazam bi ndax amoo yeneen pexe bon bi ak pétrole bi. Mhm. nekk lu bàyyi ko ci OPEC plus mm-hmm. léegi nag euh, ki nga xam ne mooy Russie bu États-Unis jógee amerique dem seeti euh, Arabie Saoudite maanaam Riyad mm-hmm. gisee euh, prince bi Mohammed bin Salman mm-hmm. ñu waxtaan depuis juillet bokk na ci li waxtaanee woon mooy ci wàllu prix pétrole bi ñu yokk lu ñuy produire ndax gis nañ ne petrole baa ngi yokk européens yi ñu ngi am jafe-jafe wàllu essence dafa jafe loolu ñuy rang ay deux heures temps ñu am essence gaz bi jamono ji boo xoolee Europe lamp yi bëri fay nañ ko te ñu ngi war a jublu période sedd ñu am problème bu diis ba ñu ngi xool essence solution sax pour Russie gazam bi ñu ñu wëttee ko Venezuela kii ñu tudd sa euh, euh, Danemark wala Norvège jox leen gaz ba léegi parce que amul gaz bu war a matal européen te liggéey bi pareegul mhm. léegi nag ñi nga xam ne bu bu kii jógee demee fale euh, Biden dem Riyad waxtaan ak ñoom pour ñu yokk pour pétrole bu ñuy génnee yóbbu ko ci côté euh, treize million barmil par jour gannaaw ga le cinq octobre moo nekkoon congrès OPEC plus fale ci Nimza mooy Autriche foo mooy siège bi xam ne jamono ji ku ko jiite Koweïtien la moo jiite jamono ji OPEC pilis ñu am fa am fa réunion bu ñu fa amee réunion ñu toog waxtaan économiquement léegi ñoom suñu wàññee lu ñuy produire ci pétrole bu ñu wàññee mmh. bar barmil bi day jar au moins cent dollars du wàcc hmm. léegi état Arabie Saoudite war a génnee dix millions barmil par jour hmm. loolu bu ko génnee di jaayee barmil cent dollars dina nekk un milliard dollars par jour su génnee woon tey douze euh, millions barmil par jour di ko jaayee quatre-vingts dollars du mat un milliard économiquement moom Arabie Saoudite lu gën ci moom mooy mu génne lu tuuti am xaalis bu bëri au lieu mu génnee lu bëri am xaalis bi tuuti pour sóor ñeneen moom nag génnee lu tuuti am xaalis bu bëri pour sóor population parce que réew yi intérêt la bon ñu am fa réunion 5 octobre réunion bi daanaka balaa muy jeex États-Unis ministère bi yore wàllu énergie wàllu pétrole bi ak bi yore extérieur dañuy woote téléphone suba ak ngoon mhm. pour forcer Riyad moom mi nga xam ne moo ci ëpp doole mhm. mu wax OPEC plus pour ñu yokk lu ñuy génne ci pétrole Riyad bañ mooy Arabie Saoudite ñu bañ ñu lu ñu ko yokk parce que ñoom seen intérêt seen intérêt mooy ñu wàññi ko ñu dëppoo ñoom OPEC plus dinañ wàññi ñu daan génne euh, wa lu tolloog deux millions baril par jour maanaam danañ wàññi au moins ñaari millions baril par jour la ñuy wàññi ci ñu daan génnee loolu dafa baax ci ñoom économiquement mm-hmm. mais baaxul ci européens baaxul ci européens non yi baaxu ci ñoom ngir ay mbir ay mbir yu bëri baaxu surtout ci wàllu parti bi nga xam ne moo yore pouvoir bi démocrate démocrate yi baaxu ci ñoom ndax ñu ngi juma eh, eh, jëm si élection yoo xam ne le 8 septembre lay am 8 septembre bi lay am kon baaxu ci ñoom xam nga tubaab yi dañoo am fulla mhm. boo leen jiitee nga cuune bu élection ñëwee dañuy sanctionné moo tax joobaay Biden tiit élection yaa ngi ñëw foofu loo xam ne du yàgg dara 8 septembre 8 septembre bii ñu war a jëm si ni ñu ci octobre ne xam nga septembre 2023 nga xam ne ñoom ak euh, républicains yi. Mhm. mooy jamhuri yoon yi ci assemblée bi dañu rawante tuuti tuuti la. cinq députés lañu rawante. te sondage yëpp mu ngi wane ne bu ñu demee élection ñoom dañuy perte ndax seen politique bu baaxul surtout ma jamono ji crise bi pétrole bu seer bi yooyu. léegi moo taxoon moom muy woote fële ci congrès bi pour fexe ñoom ñu yokk seen baril bi pour pétrole bi wàcc ci marché bi pour mën a gañ élection yi di ñëw. teg leen pression bu metti mais Riyad dafa bañ ñu ne ñoom duñ yokk luñ jaan produit dañ koy wàññi ci loo xam ne ñoom OPEC plus ci war a tolloog deux euh, deux millions baril par jour léegi nag Biden Joe Biden jàpp ne moom euh, waa Riyad mooy Mohammed bin Salman dafay dimbalee Russie ndax pétrole bi suñ ko maintenir foofu kon baril bi foo mu jar cent dollars su ko jaree Russie moo ci am intérêt parce que moom mooy deuxième qui produit pétrole ci ñoom te moom mooy jaay Siin moom mooy jaay Inde ak yeneen réew suñ ko maintenir réew moom day am ci pétrole am moom li mën a financer guerre am te ñoom seeni xeex mooy ñu xeex ko ba mu am problème pour financement guerre bu mu war a def parce que guerre bi baaxu ci ñoom. mais Oustaz est-ce que tamit euh, américains yi noonu ñu analyser le fait que ñu ne par exemple euh, ki nga xam ne moom mooy Mohammed Ben Salman dafay ànd ak Russie pour xeex États-Unis est-ce que demeewul noonu tamit. non ah, demeewul noonu parce que réew bu ne dafay xool intérêt d'accord yow Sëñ Bamba. yow soo jaayee fukki nag maanaam nag yu tolloo képp boo jaayee fukki nag nga am 10 millions nga jaayee huit am 10 millions looy jaay huit yi bàyyi fukki yi maanaam moom économiquement moom mm-hmm. li mu wax dëgg la mu ne mu ne man su ma génnee dix dix mille wala dix millions barmil par jour mm-hmm. dinaa ko jaayee barmil bu ne cent dollars dinaa am un milliard su ma génnee douze millions barmil par jour jaay jaay ko quatre-vingts dollars mhm. du ma am cent un milliard dollars génne naa lu bëri am naa xaalis bu tuuti wala ma génne lu ndaw am xaalis bu la moo ci gën mu ne man man ànduma ak Russie mais damay sàmm sama économie ak sama pétrole sama intérêt la léegi euh, fee américains yi mer ci loolu ne ko ah parce que bu fàttali ne bii mooy ñetteelu problème bi am seen diggante seen ànd bi ñu bi mooy première fois non non am nañ ñetti yoon parce que ànd nañ 77 ans. d'accord kon jotoon nañ am ay problème ñetti yoon amoon nañ problème jamono yi buur bu njëkk bi Abdou Aziz jamono bi nga xam ne Angleterre dafa jox dafa jox yahudi yi fële ci Palestine ab mm-hmm. place américains yi àndoon ca amoon nañ problème problème bu jafe ba mu jógee Roosevelt moo bindi buur maak Abdou Aziz ne ko ñun joxuñ ko suuf dont nag ànduñ ànd nañ ci waaye nekkuñ benn wàll ci xëccoo gi loolu convaincu buur ba mu continuer relation yi waaye aussi amaan nañ problème 2001 ci 11 septembre yi amoon xeexoo yooyu bu fàtte ne ñi nga xam ne ñoo attaqué woon euh, ñaari burji yooyu 15 yëpp saoudien lañ parce que 19 personnes lañu woon 15 mhm. yëpp saoudien lañu mhm. ñu amaa problème bu mag bi mooy troisième problème bu mag bu ñu am donc ëpp na ko nag am na boo xam ne jamono Malick Faye Sall am nañ problème mais ñett yu mag yi moom mhm. mooy 11 11 euh, septembre ak jamono ay ay ah, 49 ci buur bu njëkk ba ak Roosevelt mhm. am nañ problème yu bari mais bii nag moom mhm. dafa gëj am bu toll nii bii nag lu ko waral jeu la maanaam ci ci jàddukaay bu garaaw la lañ toll nii jàddukaay bu garaaw lañ toll nii ci tournant bu garaaw lañ toll nii tournant bu garaaw lañ toll nii que Joe Biden pétrole bi su yokk seer mhm. seer ci àdduna bi mu jub élection daf koy jural ab daanu ñu ne la tubaab yi buñ amee njiit mu sàggan bi ñu sonn dañuy sanctionné léegi moo tax bu ñu wootee fële ci congrès ba 5 octobre ñu fa wootee ne gars yi euh, bañ nañ yokk lu ñuy génne lu ñu produire ñu bañ mm-hmm. dañoo mujj jox léegi dañu di ñaan benn weer rek benn weer parce que ñoom ñu ngi tàmbalee euh, wàññi production bi ci première septembre bii di ñëw ñoom élection yi mu ngi nekk le 8 septembre mm-hmm. may la ñu benn weer maanaam si septembre dee ngeen soog a yokk fekk ñun suñu élection yi wees na. wees na <laughs> ñu ne luñ ñu may benn bes mhm. duñ ñu may bés. le premier septembre dinañ tàmbalee wàññi suñu production ci wàllu pétrole. léegi nag ñi nga xam ne ñooy américains yi. Mhm. surtout maanaam parti démocratique bi démocratique bi bu ñu yore nguur gi instant yii dañoo am problème. parce que problème mooy jamono ji si wàllu xam nga ñoom dañu am ñaari ñaari toogukaay mooy Sénat bi mhm. ak. Euh, kii bi congrès bi ak kii bi ñu tudd sax mooy euh, assemblée bi. assemblée bi bi am na 116. Mhm. beneen bi mooy euh, assemblée bi am na 435 16. boo ko xoolee jamono ji ci assemblée bi dañoo xaw a tolloo kiif kiif. Mm-hmm. ñu ngi rawee ñeneen cinq députés. Mm-hmm. élection yi bu ñëwee le 8. tombe crise bii dañuy daan te ñoo yore nguur gi. loolu da leen di jural nag élection yi di ñëw moom mooy présidentielle 2024. mën nañoo perte Trump mën naa nanguwaat réew mi seen loxo. loolu moo tax ñu am jafe-jafe ñu woo Saoudia ñoo woo Riyad menacé ko hmm. ne ko yaa ngi ci guerre yaa ngi ci guerre yow ak Yaman xoosi yoon ma ñun ak yow ak Imaaraat ñoo ko bokk hmm. sa réew li fa nekk ci ay xam nga am na lu ñuy wax manzumatu sawaarix mooy ay appareil yoo xam ne mooy aar jaww ji ah. bu ñu sa bu ñu lancé missile ñoo koy rotal ah. Arabie Saoudite dañ faa monté yu bëri te états yi américains yi ñoo ko moom hmm. waaye du du kii de du maye de dañ koo dañ ko luwe misir buñ daane ci àll bi dañuy fay ay milliards ko fay États-Unis États-Unis léegi nag ñun ñun dinañ xeex ak yow nag da ngaa xeex ñun da ngaa ànd ak Russie ñu ne man ànduma ak Russie sama intérêt laa sàmm man sama économie réew la sàmm ñu ne ko léegi dinañ récupérer trois mille soldats yi nekkoon foofu dinañ jàppale ci xeex bi waaye rek waaye itam aussi suñu armée yi dinañ jaay dañ koy arrêté mu ne bismillah suñu arrêté ma jëndee feneen rek parce que man mayu leen ma mhm. da ngeen lu luwe ak di ma jaay su ngeen arrêté ma jëndi feneen mais marché waaw oustaz ñun li ñu jaaxal mooy dafa am benn wax buñ doon fàttaliku ci kële nga xam ne moom mooy George Bush mooy nee na ku àndul ak man rek sama opposant nga mu mel ni américain yi lii lañ tëral maanaam ci saoudien yi donte ñoom nee nañ ànduñu ak Russie ñoom seen intérêt la ñuy sàmm mais dafa mel ni ñoom daal ginnaaw defuñu li nga xam ne moom lañ bëgg ñoom jàpp nañ ni comme Russie la ñuy kii waaye tamit li ñu jaaxal tamit oustaz mooy lan mooy lii nga xam ni saoudiens yi bu njëkkoon maanaam ñëpp dañ doon wax ni saoudiens yi kat dafa mel ni dañuy bàyyi xel américains yi ba sax am suñu ni dañ leen ragal mais léegi ñu gis maanaam benn opposition farouche muy maanaam tiinante mbagg loolu lan moo ko waral léegi. Euh, Bamba ñu ñoo demut Afrique moo demut mel ni ñaa ngi dem su fekkee ne yàlla daal def kenn ne woon fi ëpp doole. Mhm. saña di boo buur di boom di boom mi da nga yëg ne kii kat am na ñoo xam ne noo ñoo toll ak moom doole te lim day defal ñoom ñu mën naa defal lu ko raw ba pare jaay la compétence ga soo amee ful la kay da ngay taxaw si am si da taxaw maanaam mbir mi mbirum intérêt la mm-hmm. moom moo dem bi yéeg ni man maa ngi jënde fii di jëflante ak ñoom mais ni mu fara yéegi sama bopp dafa des te gis naa foo xam ne suma ma bàyyi fii am am am li ma doon am fii te lu daanaka mbir mi adduna bi mu egg foo xam ne mbirum intérêt kepp la ñun ñun dong ñooy am njiit yoo xam ne mhm. dañuy jaay suñu réew ay tubaab duñ ci xool benn intérêt waa réew mi mais naari romb nañ foofu donc nag amoon ay càggante fi amoon amoon ay càggante fi amoon ci at yi weesu woon mais Arabie Saoudite pays la boo xam ne dafay xool intérêt mhm. te xam na ne intérêt moom mooy lii mu def li mu intérêt te képp ku wax dëgg xam ne lii mooy intérêt Arabie Saoudite on ko sànq ci misaal effectivement bon léegi mhm. Russie euh, États-Unis bu ñu ko wax ko waxee loolu daf ne leen bisimilah bu leen ma jaayati man may jënd su ngeen ma jaay arme te nañ jaay ma arme di ngeen ma fi luwe ci ay ay ay ay ay yi yi yi ay missile mm-hmm. jël leen bu jëmee su ma jëlaa am ku ma ku ma luwe wala ku ma jaay seen soldats yi bu leen neexee ngeen jël en tout cas man lii faru ma Russie ci geeram ma ko sama économie réew la la la la la sàmm mu nekk loo xam ne ñun ñëpp dañoo taxaw dañoo taxaw freiné loolu nag boo koy seet. loolu oustaz lan la mën a jur maanaam suñ ko doon jàngat. waaw lu bari lay jur jur yi bokkal lu muy lu muy jur. Mhm. ci ñu yeewu ñu nii ñu war a pare préparer suñu réew nga xam ne gaañ yi faaw ñu ñëw. d'accord gis nga ku yàlla may sa réew nga am pétrole nga am gaz nga xool histoire àdduna bi wallahi boo amoon njiit bu baax fa ngay jaar ko bi faw ndax fu ñu toll nii Europe ñu ngi xool Badil Badil mooy ki remplacer. Russie ci pétrole am ak gazam États-Unis même chose te ñoom amuñ fu ñu war a mën a jëlee gaz bu mat fu du ci Afrique même bu jëlee ci fi ay ay ay ñuy wax noonu ay Danemark du mat léegi nag lu muy jur mooy réew yi nga xam ne pétrole ma nga fa gaz ma nga fa ñu sàmm seeni suuf tànn njiit yu baax préparé am contrat yoo xam ne yu baax ñu leen delloo intérêt revenu seen biir réew loolu muy benn ñaareel ba aussi ñaareel ba aussi dafay jur au lieu àdduna bi nekk am benn kilifa am benn kuy buur di buum mi non dañu bëggoon nag ah Chine mu ngi fi Russie mu ngi fi États-Unis mu ngi fi képp koo xam ne mu ngi lay bundu xataar yow ci yow la su la sonalee nga dem ci keneen ki te koo dem ci keneen keneen ki bàyyi la kon problème mooy jamono ji réew yi ndaw yi ñoo ci war a mën a bénéficier wu maanaam xare réew yu mag yi réew yu ndaw ñoo ci ñoo ci màggee képp kuy seetaan xare dëgg dëgg dëgg heure bu sottee ñu mag ñi dañuy am problème mais ñi ndaw ñi am fulla dañ ciy jaar suqaliku damaa xamul ne ñun ndax pare nañ pour suqaliku am déet loolu mën nañ cee jaar suqaliku ci suñu gaz bu ñu am ak suñu pétrole maanaam loolu noonu li muy jur mooy ñi nga xam ni ñoom ñooy américains ak européens yi ñoom maanaam seen xel yépp ci Afrique lañ ko lañ ko lañ ko seen est xam nga ne est-ce que xam nga ne Afrique jamono ji amul président yi nga xam ne ñu am gaz ak am pétrole dañuy am ay gan yu dul jeex ci ay entreprise ak ay nitu yoo xam ne nitu nguur lañ. Mhm. di leen seet si pour affaire boobu. dañ ko feeñalut mais néew na ci Afrique réew boo xam ne am na pétrole ak gaz te ay gan yooyu ba ci Sénégal. mais justement ñun Sénégal boobu ba léegi ñu ngi dégg pétrole gaz pétrole gaz si nekk mais Oustaz est que ñun sentir nañ ko fii Sénégal. léegi loolu lan moo ko waral. <laughs> man jàpp naa xëy na muy ñaari mbir. benn bi mooy euh, mu ngi ci tàmbali ma wax. Mhm. Euh, fësagul dañu mën cee jëriñu. ñaar bi aussi contrat yi ñu ci am jàpp naa baaxut ndax su baaxoon contra pétrole a gaz bu baaxoon au départ foog ñi dëkkee ci réew ñëpp gaaw gaaw ko sentir benn contrat yi xëy am ay problème wala tàmbalement bi ni mu waroon tàmbalee ba fonctionner mhm. moom moo des mais nag pétrole ak gaz moom mënta am ci réew mu am njiit bu baax ni ñuy sonn c'est impossible Qatar sonnut mhm. li ko suqal mooy pétrole a gaz Saudi Arabie sonn te pétrole a gaz moo ko moo ko suqal Dubaï même chose amul benn réew ci golf bi boo xam ne am na pétrole ak gaz nga sonn mais fulla bi mooy des ak am njiit boo xam ne njiit souvent njiit nag parce que réew du ay individu réewu njiit moo ko yore mais oustaz suñu réew mii nga xam ne moom mooy Sénégal léegi yaa ngi koy wax ñàkkuñu pétrole ñàkkuñu gaz xëy na sax peut-être xëy na ñu ngi koy waaj a nekk sax li ñuy wax di ko suqali waaye est-ce que suñu njiit mii nga xam ne moom moo fi nekk buñ ko joxaatee chance am ci troisième mandat est-ce que xëy na peut-être njëriñ loolu duñ ko gis tamit oustaz sansam. moom sansam jeex na. ah sansam jeex na. ah moom yow keneen. d'accord waaye moom ci yoon. sansam jeex na xam nga nit dëgg moo neex yàlla. jàpp na sax waroon na wax pétrole bi egg Sénégal mais bàyyi ma coupé ko foofu rek xam nga dëgg. moom moo neex yàlla. dëgg la njiit bi 2011 da doon xeex mbirum troisième mandat. dëgg moom moom suñu njiit bi xeex ko photo yaa ngi fi image yaa ngi fi moom ji ànd ak ay nit mu falu 2012 dem ba 2016 defe naa mu indi loi yoo xam ne dafay dindi coow troisième mandat ci waxam ay kàddoom lay wax man mu ne danaa fi def loi yoo xam ne amul benn doom aadama bu mën a def lu ëpp ñaari mandat yu tegaloo benn doomu aadama lañ ko làkkee ci français mu wut ay borom xam-xamam mhm. ñu bindal ko yemu fa mu taxawaat ne wax ne man maa ngi sama première mandat day jeex deux mille dix neuf mhm. su ma nit ñi wóoloo joxaat ma réew mi su boobaa pare naa ci mhm. ay kàddu ma ngi wax ay kàddoom mu waxaat ne mu waxaat moom ci bi tey mu ne man nañ maa séentoo fépp ba mu des coowal troisième mandat kon moom ci waxam ak ci bindinam ak li mu daan xeex ma wane moom sansam jeex na deux mille vingt quatre loolu mooy di am ñi nga xam ne aussi ñoo àndoon ak moom ñu war a mën a gore nit nit ki doo ànd ak moom di xeex benn valeur dem bi yàgg moom mu tourné tàbbi ci nga ànd ci ak moom gore woo nite woo danga war a bàyyi na ko kat wàññeekul yaa ngi mbëkkee ndax man ak yow démb ñu àndoon di xeex lii valeur la woon principe loolu woon lu tax may wàcc yor valeur boobu dina topp non nag mu dem bëgg nga xamante ne xaw ma lan ma ko jaay mais egg na foo xam ne moom moom mën naa la wax ne déclaré na troisième candidature. non mais oustaz bu ñu dégg président moom ba léegi nii waxagul ni dafay déclaré troisième mandat. wax na ba léegi tamit. wax na maanaam en tout cas ñun dégg. maanaam waxut ci làmmeñam mais jëf na ko. Ah, nan la ko jëfee. waa yow xam nga li mu wax naa fu mu jaar. Mhm. xëy xëy tàmbalee soppiwaat ñu laaj ko troisième mandat mu ne nii oui nii non. maanaam moo waxoon démb ne kenn du ma séntu foofu. ba mu demee ba gagné 2019 ñu laaj ko mu ne du ma ci wax déet du ma ci wax waaw mu yee mu layee ko ne ndax su ma nee déet nit ñi duñ ti nangam wax nangam mais du ñu noppi mu ne nitam yi bu kenn wax ci mbirum troisième mandat mu aaye leen ko yaa ngi fàttaliku ku génn wax ne amul droit def ko mu dàq la ñaata la dàq fi ci réew mi bari nañ ngir ne wax nañ ne amul amul droit wax ko te ñu bokk ci moom ñu bëri ci ñoom nangul ko ne kàddu kilifa la ñu noppi ca loolu maanaam ma ngi lay mbiram bi tey mu dem ba jëmmi jamono mhm. yàggul dara mu def benn sorti am ñu ko kar ne ko troisième mandat demande sociale la demande sociale loolu muy firi te moom moom mu ngi taxaw di koy caméra yemu fa mhm. nit ñi nga xam ne mooy leen aaye woon démb mhm. ñuy wax ci mbirum troisième mandat tey ñoom ñëpp ñu ngi ciy wax ku leen ko sant ku leen ko aay woon démb kon mu buñu xewoon tey bàyyi ko di ko waxaat ku leen ko sant ci suuf mais nit ñi am nañ xel yow su fekkee na nga aay nit ñi ba kenn wax troisième mandat mhm. ba xëy ñëpp di ko wax ci say njaboot te ku wax ku leen da wax ne am nga droit pour def ko fu fuñ jëlee loolu dañ naan naar bu ndaw bi ci naar bu mag ba jëlee xam nga ni ñu ko waxee déjà bu ndaw bi lu mu xam rek ci berkel la ba mu ngoog mu ngoog mhm. maanaam moom waxu ko mais mu ngi dox pour jëfe ko yàlla xam na ne ku a dëgg te seetlu di analyse mhm. xam ne Macky Sall préparé na pour déclarer troisième candidature mu des nag mhm. ndax dina ko def am dina am gàllankoor bu koy teree def foofu nag la rôlu rôlu islam di feeñee nit nitu diine yi mhm. parce que doomu aadama sa réew bu demee ci gàllankoor ci guuta la moo la war mooy nga gaaw artu nga gaaw artu jamono ji mu nga ca sondage di sonde nit ñi xool nu muy demee kilifa dina ñëw war a artu woon ne ko lii amoo ci droit ci say wax ak li nga bind ak say jëf waaye wallahi mu ngi ci yoon ba moom jamono ji mu ngi ci yoon pour déclarer troisième candidature fas yéene dagaan ba euh, réew mi 2024. waaw léegi loolu nag askan bi jàpp naa ne ko duñ ko ci bàyyi ko nag léegi oustaz léegi su fekkente ni loolu dafa nara jur gàllankoor yaa ngi koy wax léegi am na ay kilifa dinañu fi nekk am na ñi nga xam ne xëy na ay régulateur de tension lañ xanaa boog ñooñu dañoo gisul wala boog xëy na dañoo bokkuñu ak yow gis-gis. ba tax na ah. xëy na artuwuñ ko. gis nañ sax xanaa xëy na jàpp naa nit ñi li ñuy moo bokkut mais jàpp naa xëy na mhm. am na ñoo xam ne ñu ngi koy artu ci suuf. man jàpp naa loolu. Mhm. ndax jàpp naa ne man li ma am information kilifa diine ñoo ma ëpp entourage. Mhm. ñoo ëpp ci nguur gi ay baat ëpp ma ñu xam mais jàpp naa ñu ngi artu xëy na artu bi ma nekk ci suuf waaye nag boo artoo ci suuf sottiwul da ngay artu ci kaw. ne am na ñoo xam ne artu ci koo moo leen di jàjj mii man gëm naa ne ñoom ñu ngi artu gëm naa ne ñu ngi wax gëm naa ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi yónnee ay nit mais ala kullin euh, Macky Sall mooy président Sénégal yëpp waaye moomu réew mi li ko fi tënk mooy ay charte charte yooyu bu ko bu bu bu ko jeexalee dafa war a jeexal moo xam moom la moo xam keneen la ndax réew loi moo koy doxal bu ñu mee bay xotti loi yi di xotti war may loi du ñu tënkooti daanaka réew amatul. dafa amati mooy anarchie ak caaxaan ak ak ak fo. effectivement man jàpp naa ne jàpp naa ne amul nekk candidat jàpp naa ne askan wi waruñ ko ko nangul ndax moo ko bañoon démb waaye jàpp naa ne aussi képp nga xam ne yaa ngi fi te bañ ëllëg xeex am ci réew mi ak tur deret da nga war a artu ne ko yow waroo nekk candidat ci sa mbind ci sa kàddu ci sa ci sa passé ak na nga doon xeex barka démb muy loo xam ne lu garaaw la. lu garaaw la lu a yàq la. effectivement mais xam nga am na loo xam ne daal yow Bamba yab réew mi la. Mhm. mais yaa ngi jàpp ne Sénégal war a mat 17 millions. amul kenn ku ko mën a jiite ku dul yow. Mhm. wallahi bëri aana ñoo xam ne ñu ngi fi kenn xamul leen ñoo bu ñu jiitoon réew mi mu dàq fu mu nekk. maanaam nit ki nit ñoo war ci benn jàpp ne kii doo nga fi baax xam nga dafa fi nekk ni ñoom ah ba déwén ñu am problème. dem na yoonam réew maa ngi doon. maanaam jàpp na yow dong yaa war a mën a jiite keneen matul ko dul yow loolu mooy yëpp as sa ab sa askan lu ëpp ay junne junne ni ñu ngi fii kenn xamul leen boo leen joxoon réew mi mu dox beraw lu mu suñu toll fii xanaa imaam yi nekk ci koñ yi xam ne boo réew lu koy jiite maandu mooy fondement bi maandu bu nit amee maandu mën a séddale bien réew mi ñëpp fenca kooku ku man a doon mën naa jiite ab réew ndax réew mi appareil la président kenn la ci rek mais appareil la appareil bi mooy doxal réew mi mais président bi bu mandoo doylu ci alalu askan bañ koo pasar pasare fexe di ko distribuer ku ne gis sa bopp loolu même ku jàngul mën na koo def ndax xel moo koy def bu tegee ci kaw maandu oustaz mu mel ni ci troisième candidature boobu mu mel ni xëy na nekkul président kese donte peut-être xëy na waxagu ko mais gis nañ benn candidat ku ñuy wax maanaam Ousmane Sonko jamono yi nga yi ñu nekk mu ngi def li ñuy wax maanaam nemmeeku tuur am na ñoo xam ne nee nañ xëy na sax dañ ko tuddee sax maanaam genre campagne donte campagne gi tàmbaleegul. Mm-hmm. mais ci loolu mu mel ni xëy na nguur gi dañ koy bundu xataal maanaam fépp fu muy dem rek xëy na ñu koy yónnee ay gendarmerie ay gendarme wala policier ba xëy na sax coow di si jur ba ñu bëri ragal ni lii xëy na mën na jur leneen oustaz yow loolu naka nga koy jàngatee. ci anam ci ñaari anam ba ci ñett benn bi mooy nguur gi mu ngi koy defal campagne. te ñu ko ndax ba mu génnee moom dong di dem di du campagne sax boobu. Mhm. mais ñoom nguur gi joxe campagnal te yëguñu ko mhm. ndax ba mu demee di nemmeeku ay citoyen ay ay ay ay nitam bu ñoppi woon mel ni ku yëgut maanaam ampleur bi mu am di ko am kon ñu ngi koy yokkal coow te njiit politicien daa bëgg daa bëgg coow pour ñu gën koo xam mhm. kon ñoom ñu ngi koy yokkal campagne ci yëguñ ko te waroon nañu ëpp am waroon am xel mu raw foofu la Ousmane Sonko bëri na turam fu mu yegg si nguur gi ma ko fa yóbbu wallaahi kon ñoom ñu ngi koy yokkal ay nit yéeguñ ko ñu ngi koy yokkal parce que beneen bi aussi bundu xataal bi nit ñi sénégalais moo bëggul ko ñuy tooñ bu ñu yemee xam ne kii dañ koy tooñ xataa buñ ko xamul dañ koy far parce que sénégalais moo bëggul injustice dont moom lay dund nag waaye bëggul ko loolu mooy benn bi kon bu doon man maa nekk ñoom dama koy ko neexoon mu dugg ba Mali moo xam mais du ma ko tudd du ma ko taasu. d'accord ba mooy lii du campagne mhm. lii nemmee nemmeeku tur la njëkkewu ko. Macky Sall def na ko 2009 def ko 2010 def ko 2011 trois ans. d'accord wër na Sénégal ñetti yoon bu ñu ko defoon nii dina egg fu mu yegg si. xanaa Wade moo ko gën moom. Mhm. Macky Sall 2011 ak 2009 2010 2011 dina wër senegal ñëw na fii Kaolack. man fu naan ñëw fii ci kaw la xam naa ko léegi yow nag en tant que doomu aadama boo xam ne nit nga di doxe si sago loo xam ne yaa ko defoon démb bu nga nekk opposition tey nga am keneen ku la opposé def bu ko def nga aaye ko ko yow xeexatu valeur yow sa xeex du principe kon ndekete mais lii mu def Macky Sall defoon na ko président Macky Sall Bougane def na ko mais pourquoi Bougane bu ngay def attaqué guñ attaqué guñ ko wala moom bokk ci mbir mi maanaam lii muy def. loi moo ko ko may campagne loi moo may képp koo xam ne leader nga comme ni ko Macky defee woon président Macky nga wóor nemmeeku say citoyen ak say nit kon nag li leen waroon moo ñu bañ koo yëg ndax lii yoon moo ko ko may xottiwul ak yoon la may def am na ñu ko si njëkkoon def may kii toog ci réew mi tey defoon na ko trois ans waxuma la un an de trois ans la ko def def Sénégal trois trois fois bi bu demee ci dëkk ñu naan ko aari ne do aarti mhm. ñëwul nga fi ñëwaat nga kon na yaa xaytimul laay mhm. li muy def kay ndeke ni yoon la loolu mooy loolu mooy ñaareelu mbir bi euh, ñetteelu mbir mi aussi mhm. mooy man jàpp naa gendarme yooyu ñuy yoon euh, topp di ko encadre di ko di di ko bundu xataal wax dëgg fi yàlla loolu moom du ëpp la loolu tooñ la ndax nit am na liberté maanaam citoyen bu ne am na liberté dox say soxla nemmeeku say nit xool say mbokk mais bu ñu jëlee benn ak jëmm nag singili ko ne moom waru koo def loolu moom ab tooñ la. mais waru ñu am boo xam ne moom gendarmerie ak euh, police nga xam ne ñoom santuñ sàll waaye national lañu mooy waa réew mi lañu. xataa bu ñu ànd ak moom day nekk ci buntu encadré waaye pa paa ci buntu di di xatal ak buntu xatal ak xanaa naka loolu loolu loolu. mais ñoom li ñu wax dañ dañ ki nga xam ne moom mooy président Ousmane Sonko xëy na. maanaam dafay def trouble à de public est-ce que tamit ñoom it te comme ñoom gendarme yi ñoom seen mission mooy xëy na réguler bañ ba trouble benn trouble bañ a am est-ce que tamit nekkul loolu tamit. parce que xam nga ne Bamba trouble yu bëri koy def ñoom. su <laughs> fekkee kaa ngi dox di jàll. Ah. nga ñëw bloqué ko ne doo jàll. yaa bloqué yoon bi. <laughs> xam nga. Ah. maanaam ëpp laa mel na mais bëri aar na ñu lay tuumaan yaa ngi def trouble trouble yooyu fekk ñoo koy def. ñaata yoon ñaata yoon la Sénégal am mars nit ñi dem dox mhm. wàññeeku waat ñu si su fekkee dara gàllankoor wut keroog bu ñu départ nag am ñu leen di bloqué si yoon ya mhm. foofu ci la di am wallahi bëri nañ koy tuumaa nit fekk ñoom ñu koy tuumaa ñoo koy ñoo koy créé moom mu ñëw dugg ci àll taxawul si tali de deful ci base si tali mhm. deful base benn yoon romb ci yoon ngay topp ci jàll gaay jàll ana ana trouble fii mais ba ñëwee ne ko doo jàll nag bloqué ko yoon yëpp taxaw kon moo def bi kan ko def. Ah, mel na ni ñoom <laughs> xam nga ñun li ñu egg foo xam ne wa dëgg yàlla dañuy fooy xelu nit ñi dëggu moo fi jafe. dëgg la wallaahi dëggu moral nit taxaw di waxal yàlla. xataa mm-hmm. bu dëgg bi daanoo sa kaw nga xool sa borom. loolu la islam rawee mbooleemu mbooleemu système yi. islam mm-hmm. day maandu xataa ak sa noon. xataa ak sa noon da ngay maandu ci moom bu nekkee ci dëgg nga nangul ko kii mu ngi ci dëgg. yàlla moo ne bañ ay nit bu leen tax mukk bañ a maandu ndax maandu moo gën a moo gën a jeg ragal yàlla fa la islam ragal système yëpp te bu doon système islam la ñuy dund dund yàlla d'abord balaa nit ñi soor ne ëllëg da ngay dajeg yàlla balaa nit ñi wallahi du tax mukk nga jaay sa ngor xatta boo nekkoon employé di xaar ordre da jàpp ne am na ordre boo yore bu jiitu mooy ordre yàlla système islam amul benn système bu mu yem bàmba réew bu mu gën a manqué mu gën a bari ak coow ak fitna ndax bari aan yi ñuy def yoo xam ne boo koy xoolee ba day wane da nga jàpp ne kii islam amu ci dara te bu ci amoon cër ne sóor ne bés day ñëw mu dee da jeg boromam wallahi la doxalee nii te yàlla noppi na nag yàlla bu namee buggaan nekk président daf koy nekk bu namee Sonko da koy nekk daf koy nekk kum namm nga nekk président adduna bi yëpp bu ñëwoon xeex la du tee nga nekk ko kum mu doo ko nekk adduna bi yëpp buñ la buuxoon doo ko nekk loolu boo ko xamoon da nga loolu boo ko xamee même booy xeex ak nit da nga ci demee ndànk nga xam ne yàlla noppi na ci ay mbiram bëri aana koy xeexal di ko gàllankoor fekkee xeex boobu moo koy jural ab tëb ba egg fu mu war a jëm mu gaaw lool loolu nit ki fa mu gëm ko ndaxte ñun ay jullit lañu li ñuy inspiré li ñuy sol suñu biir mooy gëm yàlla d'abord di ko doxee ñu pare fexe lépp lu ñuy wax na mu ànd ak dëgg suñ gëm kàttan ma jàpp naa gàllankoor yëpp mooy sori diina ak sori gëm yàlla macha allah jazakumullahu mu mel ni liñ ñu cërale woon ci waxtu daanaka egsi nañ si waaye xëy na pour tëj rek mooy ginnaaw jàngat yu am solo yi ñu fi defal al maanaam uh, lii nga xam ni uh, buñ ko seet seetloo Sénégal ni muy doxee ni ñu bari nee nañ lii raamkat si ñag bi la jëm en tout cas nit ñi tiit nañ ci lu bari ñu si en tout lu nekk daal ñu ngi koy wax ñi nee nañ dañuy waaj a jàpp Ousmane Sonko ñii ni duñ ko jàpp lu ne daal ñu ngi koy wax oustaz yow yan conseil moom ngay jox ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci nguur gi pour que rek maanaam Sénégal woy nekk ci jàmm. dinaa tënk ci ñaari barre benn bi mooy ci arabi Saoudite mhm. di bëgg lool lu ñu def ndax nit da ngay fonk sa réew di dox sa intérêt réew te ñoom lii ñu dox pas bu ñu teg intérêt bu mag la ñeen Arabie Saoudite génnee pétrole bu tuuti am xaalis bu bëri waaye. di ñaan suñu borom mu may ñu ëllëg njiit yoo xam ne aussi dañuy dem bay doxal intérêt réew mi ci jéego yu mel nii ni nga xam ne moom nga jeexalee mooy lii raam bi ci ñàkk bi la jëm man jàpp naa sax yegg si na fa jàpp naa yegg si na fa donc nag man man ñoo jàpp Sonko waaye man gëwuma ko nag man gëwuma danañ ko jàpp ndax ñoo xam ne dañ koo créer jafe-jafe di wax waxu procès ba ñi fi ñi ci bokk ñëpp boo seetloo seen palaato yi léegi wax waxatuñu waxu att procès li ñuy wax mooy procès moral la ñuy wax wane ne ku def nangam sañoo laaj réew mi maanaam génn nañ saa mbirum procès dafa mel ni ñoom <laughs> ni ñu leen préparé pour jàppee ko ko ne nañu yàqu na kon fu ñu jëm mooy yàq der damay faral di wax nag ñun nag tànnuñ imaam réew mi bu ñoo bu doon imaam la ñu tànn Macky du bokk Sonko du bokk mm-hmm. ñun tànnuñ imaam de ñu dañuy tànn koo xam ne alalu réew mi du ko yàq daf koy séddale ñëpp gis seen bopp ñu tànn koo xam ne am na xam-xam nu nu ñu yoree waaye muy ku doylu ba mu wóor na ne kii bu ñëwee amul benn dërëm buy saaw kuy sàmm intérêt réew mi nit na bu taxawee ne man man de manuma ko am naa ci barab fukki at ak juróom te ma mënoon lekk xaalis bu bari te lekk mu fa benn dërëm kooku am na yaakaar na boo ko tegee ci réew du yàq xaalis réew ma yàlla na moo xam lu am ëllëg man nag gëma dinañ ko jàpp te gëm naa ne bu ñu ko jàppee moom réew mi tàkk waaye bu nu sama sago moom man man bañu ma ñu woo ko ndaxte citoyen la mm-hmm. am na lu ñu ko tuumaal ñu woo ko mu taxaw ci kanam mu juge ak ki ñu ko tuumaal ñu àtte leen si setal deram ndax ñëpp képp kuy waxal dëgg xam nga ne li ñu waxoon ci moom war koo yàqal ay dossiers yi amut yàlla na dëgg yàlla dëgg la bëgg nag nit ki wartu ragal wax dëgg daal nit ki ba dee daa ngi toog di wax xam ne sa borom mu ngi lay tiim nga am looy nëbb ak luy bañ wax de war ngaa noppi rek war ngaa noppi li am solo laa mooy man li may ñaan nguur gi bu man may dogal dama koy tëral du am saa suite ndax loolu moo ëpp jàmm xataa boo ko woon bur àtte ko sax gannaaw bu mu la leeree kii tooñut boo demee bu mu leer na too tooñut te mu wóor na boo ko wooyee pour àtte ko day jur ay coow mën naa am bakkan yu ci dem te mu wóor na tooñut daa da nga ko teg sans suite parce que am na loo xam ne da xool da xool lu muy jur ma bu la wóoru ne wallahi moo tooñ fekk ab doomu jàmbur siif ko ni mu amee même bu dee day jur ay bakkat yu dee na ko atte parce que tooñ moom warul am ci réew waaye boo enquêté ma wóor ne kii moom tooñu luñ ko ju luñ ko tuumaal dëgg dëgg amut te boo ko wooyee pour atte bu cee bu ko tilimal bu ko suufeel day jur ay bakkan yàq yi da nga sàmm bakkan yooyu bakkan yooyu nga sama bu leen di bu leen man bu dee maa nekk njiitum réew am kàddu dama koy classé sans suite xataa bu ma koy atte itam dinaa ko atte noo xam ne du am benn coow donc nag moom réew mi moom yow Bamba mu ngi ci guuta moom ci buntu guuta la taxaw wallaahi fa la taxaw ku koo xam ne xamoo saa su ne mën naa tàkk loolu ngay dégg ñu koy ruum laa jàpp Sonko dañuy jàpp Sonko bu ñu ko jàppee réew mi am problème sunaa bu ñu ko jaayee jole forcé ko nekk jàpp ko patam patamee ko yóbbu ko yóbbu ko loolu mënta nekk sax parce que nit koo xam ne da nga am ay million nit mm-hmm. ca gannaaw te nga porté projet boo xam ne dañ dañ ci am yaakaar te ñu yàgg na lool su nga Macky Sall 2011 bu ñu def nemmeeku turam boobu mu ñu ko jàppoon dañu tàkk loolu yàlla mayoon nag may na keneen lu toll noonu mbaa lu ko raw kon nag yaa xayti jarul jarul dara ñaaw fi Sonko bu yàlla na mu jiitee du jiite kon li am solo mooy moom lu mu diggoon ak sénégalais yi mooy def ñaari mandat bu ko matalee nga organiser élection yu set ku yàlla tànn moo xam Amadou Bala moo xam Sonko moo xam Bougane la ku mu mën doon ku yàlla tànn ñu tànn rek ànd tànneef yàlla ñu mm-hmm. ànd moom mu dem te réew mi mu jomb moom mi jiite num ko fekkee woon mu jëmale ko fa gën a foofu mu jomb bakkan yi nga xam ne moom moo tuur woon ba muy falu mu jomb yi ko raw tuurwaal ba muy follee ko ndax nit ki dafay sàmm gannaawam moom mooy moom moo jiite Union africaine xaw ma jiite yu bëree bëree bëri yaa xayti li ma waxoon mat na kay man lu ma yaakaar si moom man yaakaar naa hmm, loolu muy jëf jëfee ci suuf wala ne naa déclaré candidat yaakaar naa mën naa ma gën ci gànnaaw jël ci gànnaaw am nañ si yaakaar a am nañ yaakaar ne wax dëgg yàlla intérêt réew mi moom mooy li nga xam ne moom moo koy soxal alhamdulilah suñu mbokk téléspectateurs yi tey lii leen leen indiloon ci suñu question d'actualité ak ki nga xam ni moom mooy al oustaz Mouhamed saw nga xam ni moom gëstukat la ci lépp li nga xam ne nii moom mooy ay question yoo xam ne dafay soxal dundin ak nekkinu doomu aadama mu nekk ay question yu am solo tey nag ñu defoon li ñuy wax round up maanaam dellu siwaat bu baax a baax ci yi nga xam ni moom moo fi xew ba egsi suñu Sénégal kon al oustaz ginnaaw bi ñu la gërëmee ci disponibilité di la ñaanal bu baax suñu borom barkeel te yokk xam-xam xam naa dañ lay jox nga tëj jotaay bi ñu soog waaw di gërëb ñëpp di sant ñëpp di ñaan suñu njiiti réew mi ak ñi ànd ak moom ci appareil gouvernement bi ñu sàmm suñu suuf dinañ ko ñaan ngir yàlla nañ sàmm suñu suuf tubaab yi nga xam ne ñoo fi ñëw di wut ab suuf ñoo xam ne koom-koomu réew ci njëkk mooy doomu réew mi moom seeni suuf di ñaan ñu vee bu baax xam naa ne ay nit dañ ñuy dëkk ci réew mi bëgg réew mi kon di leen ñaan sàmm suuf réew mi waaye di gërëm képp koo xam ne yaa ngi ànd nag ñun ci Fafa lépp loo xam ne jub na ci yàlla bàyyee ko waaye suñu yéen rek mooy mu jub te baax lépp loo xam ne moo ci dëng ñàkk ci jub ñu xam ne ñàkk a mat doomu aadama la ak njub ci doomu aadama la bëgg rek mooy yéwe ñaan suñu këm kattan di ñaan suñu borom jàll waala muy yërëm suñu oustaz imam Ndaw ndax bari aan nañ daan xam ci réew mi ñu ngi xamee ci moom ci ay jàngatam yu am solo ñaan suñ borom mu yeesal jër mu dem ci kawam moom ak képp ku mu fa fekk ak képp ko xam ne fekk na ko foofu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu qul maa inda allahi xayrun min wa min attijaara